إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعدكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه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 ginnaw biñu sant yàlla julli ci yenent bi alayhi salatu wassalam ñu ngi won ba tey ci kitabu sawm bul jami sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn ismail al bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci suñu jotaay bi wess gisoon nañ ci babu sawm subyan buntu bi nga xamne mom moy wax ci koru gone ñu gisoon ci li nga xam ne moom la Seydina Omar radiyallahu waxoon ki nga xam ne dafa màndi woon ci weeru koor mu na ko way la ka wa sibyaanunaa siyaamun toskare ñeel na la lu tax lii war laa mën a dal te fekk ñun suñu gone yi ñoom ñu ngi woor moo tax fa darabahu mu daal di koy dóor naka noonu gisoon nañ ci xadis Seydina Rubayya bint Muawwiz radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne dafa waxoon ne arsala nabiyya arsala arsala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ghadata ashura ila qura al ansar man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi wa man asbaha wa man asbaha sa'iman falyasum mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa yabaloon ci bëccëg ci suba ashura ci dëkk yi waa Ansaar yi maanaam mooy ci seen koñ yi ni képp koo xamante ne dafa xëy nekk koo xam ne dafa dog na daal di mottali li nga xam ne moom mooy di des ci bésam waaye képp koo xamante ne dafa xëy nag woor na daal di woor mu daal di wax ne fa kunnaa nasuumuhu baadu wa nusawwimu subyaanana ñun dañu ko daan woor nag ginnaaw ga bu boobaa ñu daan woor sax suñu gone yi mu daan tey sax teg daan dañ leen daan wutal lu ñuy wax maanaam am fowukaay euh, boo xamante ne ku ci jooy rek moom lañ la daan jox ba waxtu euh, dog jot naka noonu gisoon nañ ci baabul wisaal bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu wisaal gisoon nañu wuute yi boroom xam-xam yu wuute rahmatullah ci leeral lan moom mooy wisaal euh, ngi mun ak maanaam wax baabul wisaali wa man qaala laysa fi llayli siyaamun li qawlihi ta'ala thumma atimmu siyaama ila layl kon buntu bi nga xam ne moom moo doon wax ci wàllu wisaal ak buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ci nga xam ne moom lay wax naan topp nag na ngeen mottale koor gi bëccëg guddi ga gisoon nañ ci euh, xadis muallaq bi nga xam ne moom la indi ginnaaw gi mu indi ko ci ginnaaw gi mu ne a nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko tere mo misaal waaye mu ne rahmatan lahum ngir ak yermande ak ñeel len wa ibqaan alayhim ak ngir tamit ngir saxal len manam moy ñu mën e, e, e, a a am ay gàllankoor mu wa ma yukrahu min at-ta'ammuq ak lepp lo xam dañ ko sit ci di tengal gisoon ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax naan laa tuwaasilu bu leen eh, def wisaal bañ ko wax ne ko innaka tuwaasil ni yow da def wisaal maanaam da ngay jokkale koor yi mu ne lastu ka ahadin minkum man de nekkuma kem kenn ci yéen inni ut'amu wa usqa man de dañ may leele te dañ dañ may dañ may nàndal wala boog inni abitu ut'amu wa usqa man damay fanaan ñu nekk ku may leele naka noonu damay fanaan ñu di ma nandal loolu xadis boobu tamit gisoon nañ xadis bu ko nuru ci xadis sayidna abdullah ibn umar ibn alxataabi radiallahu taala anhu ak xadis sayidna abu saidin alxudri radiallahu anhu waaye bu sayyidina abu said bi radiallahu anhu daf cee teg ne ida araada an yuwaasila fal yuwaasil xatta saxar manam kep ko xamne sax nam mo na dal di def misal nako dal di def jokkale googu nako dal di def rek ba jël naka nonu gisul nañ ci xadis soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom moy wax ji imaamul bukhari indi won fële ci njaal benu buntu bi soxna Aisha radiyallahu anha ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam 'ala al-wisal rahmatan lahum ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama dafa leen tere wisaal maanaam ngir yërmande gi moom am ci ñoom ñu gisoon ci tamit baabu tànki li man ak ak ak saral wisaal maanaam buntu euh, mitital ak teg coono wala boog mbugal ñeel képp koo xamante ne dafa bëri wisaal euh, ñu gisoon ci xadis sayyidina abu hurayra bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naha anil wisal fi sawmi ne dafa tere wisal manam ci e, koor naka noonu noonu la jokkale woon di di bi bi nga xamantene nag gis na ni sahaba yi radiallahu anhum am na ci ñoom ñoo xamantene bàyyiwuñ ko loolu nag bi nga xam yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne fa lamma abaw an yantahu an an yantahu an wisaali waasala bihim yowman summa yowman summa ra'awul hilal mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne gars yi ñoom ab daf ci amoon ñoo xamante ne dañoo bañoon a jokkale wisaal googu dañ ko bañoon a bàyyi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jokkale ak ñoom fan topp ña beneen fan mu ne waaye nag ginnaaw gi nag mu daal di leen di e, mu daal di e, leen e, ñu daal di gis weer wi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne law ta'akhkhara la zidtukum bu weer wi yokk woon maanaam bu yéexoon a feeñ ma dolli leen ah, loolu nag mu ne nag kan kat tanki li ci yeneen riwaaya kal munki li lahum kéem koo xamante ne daf leen di teg ak daan maanaam xëy na aboo an yantahu ba nga xam ne dañoo bañoon ci eh, daytalu naka noonu gisoon nañ xadis sayyidina abu hurayrata bi ba tey taala anhu bi nga xamante ne tamit loolu la doon tere wisaal naka noonu gis noonu nañ baabul wisaal ila saxar bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wisaal ba euh, njël ñu gisoon ci xadis sayyidina abu sa'id al-xudri bi radiyallahu ta'ala anhu naan laa tuwaasilu fa ayyukum araada an yuwaasila fal yuwaasil hatta saxar mu ne bu leen jokkale fan yi ci koor képp koo xam ne nam na koo def nag na daa di jokkale ba njël euh, léegi nag imam al-Bukhari rahimahullah daan ne baabu man aqsama ala axiihi li yuftira fi tatawwu walam yara alayhi qada'an idha kaana aw faqala baabu bunte bi nga xamante ne moom lay wax maanaam kon ginnaaw bi nga xamante ne wax na ci lépp loo xamante ne maanaam dafa aju woon ci wàllu wisaal ak masala yi nga xam ne ñoom ñoo ci doon wër-wërloo léegi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di dugg ci ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci koorog naafila muy koor goo xamante ne nekkul loo xamante ne maanaam ak farata la ci wàllu koor mu ci leeral ay masala yoo xamante ne da ciy wërwërloo mu tàmbalee ko ci buntu bii nga xamante ne moom lay wax mu ne baa buntu man ka nga xamante ne ak sama dafa giin ala axiihi ci mbokkam ne ko daal giñ naa ne daal maanaam maanaam wala boog ñaan naa la ci yàlla daal li teral ne na nga dog fi tatawwa ci coo ci euh, cooba rew maanaam ne ko nag kooruk coobarewu la comme kooruk coobarewu daal maa lay ñaan daal léegi daal dogal maanaam walam yarat te gisul alayhi ci moom xadaa ak dog maanaam ak ak fay boo xadaa ak ak guy war ci nit kooku iza kaana su gisee ni loolu daw aw maanaam mooy dog gi gi nga xam ne moom lay dog ci kooruk coobare googu aw faq moom moo gën a dëppoo la oo ñeel ko naka noonu tamit ci yeneen riwaaya ci bu saxeex bi maanaam arfaqa lahu la maanaam waaw gi raa moo ko fi manam bu gisee ni lolu moom mo gëna mo gëna rafet ci àndaale gi gëna a yomb ci ay mbiram manam li kon masala bi dañuy gis ne kon dafa lambo manam buntu bi dafa lambo ay masala masala bi nga xamantene mom moy bu njëkk bi mom moy ki nga xamantene da fay giñ manam ne mbokam ma ngi lay ñaan deful nangam manam moy ni kon julit bi amna haq ci morom julitam ci diko ñaan diko sakku ci mom manam ngir lo xamantene hatta ba mbir mi sax jaamu yàlla la ci cosaan waaye mu am sabab bu war mën a tax boo xamante ne gis na ni loolu foo ko defee xëy na seen diggante wala bokk mbir yi ci lay gën a yembee ci loo xamante ne lu ñu mën a nattale la waaye nag loolu tamit warta nekk rek loo xamante ne saa yu ne ñoxor jaay rek nga ne ko ah, sa julli gi ten koo bàyyi ñu daal di def nangam wala sa koor gi ten koo bàyyi ñu def nangam déedéet maanaam faaw daa war a nekk loo xamante ne day am sabab yu leer yu waral yoo xamante ne boo amul maanaam mbir mi day am yoo xamante ne xëy na ay yeneen i lu ñu tuddee masalihul mursala maanaam ay njariñ yoo xamante ne ñëpp koy bokk léeg daf ciy war a aju wala boog mu nekk njariñal ki nga xamante ne moom mooy nit ki ci jëmmi boppam maanaam bokk jullitam ne ko maa ngi lay ñaan bàyyi lii maanaam ngir ne xam na ni loolu moom moo ko amal njariñ loolu moom moo tax ñaareelu masala bi nga xamante ne moom moo ci nekk nag moom mooy ci wàllu koor gi ci jëmmi boppam maanaam moom mooy koor bi nga xamante ne moom mooy kooru coobarew ndax su ma wooree ba ci digg bi fekk koor yi kooru coobarew la ndax sañ naa ko bàyyi waaw wala déet ñu gisoon ko ci kitaabul iman xadisul aaraab yi boobu nga xamante ne dafa ñëwoon ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lan moom mooy li nga xamante ne moom moo nekk farata ci man bi mu ko la waxee wàllu julli yi ni ko juróomi julli la ci diggante guddi gi ak bëccëg gi mu ne ko hal alayya ghayra zalik ndax am na leneen lu bokkut ak loolu loo xamante ne tegu na ci sama kaw mu ne ko laa ila an tatawwa na ko noonu weeru koor tamit noonu la ko waxee woon bi mu ne ko shahru ramadan maanaam moom nga war a woor mu ne ko ndax am na leneen lu ma war lu bokkut ak loolu mu ne ko laa illaa an tatawwa déedéet lu dul xanaa ngeen nga coobarewu waaye loolu li nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim ci illaa googu euh, ndax manam istisna bobu moy settee googu moy bi exception bobu mu nga xamné mom la ci tek ndax muttasil la wala boog munfasil la manam ne dafa jokkolo wala bok dafa nek lo xamantene dafa dafa dafa dok ah dafa dok bu fekente ni jàpp ne istisna un muttasil la te ñom ñoy fuqaha u te ñom ñoy fuqaha u xanafiye ak no fuqaha shafi'i shafiye ak xanaa bi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko euh, loolu euh, maanaam euh, du la war xanaa mbete rek xanaa boo coobare woo soo coobare woo daal mën ngaa daal di woor lu la neex maanaam te loolu du nekk loo xamante ne lu lay war la waaye ñi nga xam ne ñooy fuqaha xanafi yi ak maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne déedéet loolu li muy tekki moom mooy istisna un munfasil la mooy maanaam bi maanaa laakin waaye nag maanaam mooy déedéet dara teguwu la waaye nag soo coobare woo mbir mi day daal di nekk ci sa kaw farata ci anam goo xamante ne kon yow dootoo ko sañ a dogati soo ko dogee faw da koy daal di euh, fayaat kon loolu moom mooy euh, li nga xamante ne euh, moom la borom maanaam moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute waye mu am hadith bo xamantene sayyidna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu daf ko solo mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamantene mom dafa ne dafa defaraloon yenente bi ñam mu ne sana'tu nabiy sallallahu alayhi wa sallam ta'aman fa lamma wada'a qaala rajulun ana sa'im manam ma defaral ko ñam bi nga xamantene ci la ko tege am ben way bu ne man de damaa woor yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko da'aka axuuka wa takallafa laka aftir wa summa kaanahu in shi'ta mu ne ko ah yow day xadis la boo xamante ne bu isnaadul xasan la boo xam imam al bayhaqi rahimahullahu taala soloo na ko mu nekk xadis boo xam ne kon xadis bu wér la bu ñu mën a sukkandikoo imam maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sa mbokk mii day toog gu na boppam ay jëf maanaam daj na coono ci toog tegal la ñam ba pare nga naan ko dama woor dogal su fekkente ne euh, bu la neexee sax nga fay ko beneen bés maanaam inshita boobu mu ko ci tegal ne ko su la neexee maanaam nga fay maanaam nga fay beneen bés inshita su la neexee loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne du nekk loo xamante ne lu war la beneen bi ci des mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al mutatawwi'u amiru nafsi ki nga xamante ne moom mooy coobarew moom mooy imaam boppam maanaam lu ko neex lay def ci li mu coobarew ci jaamu yàlla benen bi ci dess mom moy hadith yi nga xamantene imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi loolu yep day dëgëral mazhabu shafi'i khana xanaabila rahmatullah alayhim ci na loolu moy li gëna a insha allah taala mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab ilayhi hadathana muhammad ibn bashar te mom moy bundar moy al imam abu bakr al abdi al basri rahimahullahu taala Euh, bokk ci fukkoo la tabaqa bi gane àdduna 167e année génn àdduna 252e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta waaye moom sax sëriñ la ci mboolem waa asxaabu kutubu sitta rahimahullahu taala mun a qaala xaddas dinañ gis euh, mbokkam maanaam ne mu nuróolu carrément ci lépp mooy Muhammad ibn Musanna moom ci kanam xadis yi ci kanam dina ci ñëw inshaa allahu taala mu ne xaddasana Jaafar ibn Awn mooy ibn Ja'far ibn Awn ibn Ja'far ibn Amr al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Awn mooy dàqantalam bu bokk ci juróom-ñeenteelu tabaqa bi moom nekk waa Kufa rahimahullah gane adduna cent vingtième année génn adduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit xadisam nekk ci kutubu sitta mun a qaala xaddathana Abul Umays te moom mooy Utbata ibn Abdullah ibn Utbata al-Hudhali al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala ndax moom doom wala boog sët la ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu muy Utbata ibn Abdullah ibn Utbata ibn Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali radiyallahu anhu ta'ala ñu naan ko Abul Ubays moom waa Kufa lañ bokk ci juróom-ñaareelu tabaqa bi rahimahullah mu ne an Awn ibn Abi Juhayfa rahimahullahu ta'ala bokk ci ñeenteelu tabaqa bi génn maanaam muy Awn ibn Wahb maanaam Wahb mooy Wahbul Xayr ki maanaam ci nekk saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu moom mooy baayam moom mi ngi bokk ci ñeenteelu tabaqa bi génn àdduna 116e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu moom Wahb ibn Abdullahi maanaam ñu koy Wahbul Xayr rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu di ab Seydina Abu Juhayfa gisoon nañu xadisam radiyallahu ta'ala anhu moom it waa Kuufa la génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na aaxaa mbokkolee na na annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bayna Salmaan diggante Salmaan muy Seydina Salmaan al-Farisi radiyallahu anhu wa Abi Darda ak Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu manam ñom ñaar ñi ñom la mbokkale woon moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fa zaar maanaam te loolu yenent bi daf ko don def sallallahu alayhi wa sallam diggante sahaba yi radiyallahu taala anhum manam ba nga xamantene du bàyyi benn saxaaba moom kesse mu daal di nek nonu kesse dedet kenn ku ci nek da fay am kum ne la yow mi ki nii la la mbokale yeen ñaar ñi bu len tàqalikoo maanaam nekk leen benn nekk leen nekk leen benn nekk leen ñoo xamante ne da ngeen di bok ay mbir di bokk ci li maanaam ngeen di yëgoo ci seeni mbir nekk comme kenn ku ci nekk jàppee moroomam ku mu bokkal ndey ak baay maanaam loolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon def te loolu da daan tax maanaam nit ki di ci yoonu maanaam nit kuy soobu ci yoonu yàlla tamit faw maanaam li gën ci moom mooy mu nekk koo xam ne dafa am ay mbokk am ñoo xamante ne day ànd ak ñoom ci yoonu yàlla euh, loolu euh, comme mooy li yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam waxoon bi nga xamantene mom la ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu naan waj'al li waziran min ahli harun akhi usbud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira mu nga jël sama mbokk euh manam defal ma wutal ma koo xam ne jawriñ lay doon boo xam ne ci sama sama maanaam ci sama euh, euh, mbokk lay doon euh, ci sama njaboot ci suñu waa kër lay doon sama ñoñ lay doon mu nekk yent yàlla Haaruna alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moom sama mbokk la mu ne ko loolu lu tax lu tax mu ne bu ko defee nga dëgëral sama mbir maanaam mooy ne lu benn mën ñaar ñoo ko ko dàq maanaam àndandoo googu bu ko defee kenn ku ci nekk di kirtal moroomam ci cawarte ci jaamu yàlla waaye bi soobu ci yoonu yàlla ba noppi nekk koo xam ne da ngaa beru loolu ñaare seytaane ngir mu mën laa jël maanaam ngir mu mën laa def li mu la bëgg a def loolu wala boog ngir mu mën laa nax ci ay xalaatin ak ay doxalin loolu day daal di yomb ci moom en tout cas ci lay gën a yombee ko bu fekkente ne yow dafa am ay mbokk yoo xam ne yooyu ngeen di ànd bii soo sóoboondoo ci yoonu yàlla beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la am moom mooy bi mu ne ko euh, euh, kon isdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kon dëgëralalal ko samay mbir maanaam ma maanaam sama lambaay maanaam mu gën a takku nga mën a ànd ak moom bu ko defee euh, wa euh, ashriku nga bokkaale ko fi amri ci samay mbir mu ne loolu yëpp lu tax mu ne kay nu sab sabbihaka kasiran wa nazkuraka kasira su ko defee ñu lay sàbbaal lu bëri ba pare di la tudd lu bëri loolu kon day daal di tegtale tamit ne kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy kon soobu ci yoonu yàlla di dajaloo di tudd yàlla lu bëri maanaam di zikkar ndax ndax sàbbaal gi loolu lay loolu lay loolu lay làmbo loolu lay ëmbaale naka noonu tamit ñu nekk ñoo xamante ne dañuy faral di gisee di fàttalante borom bi subhaanahu wa ta'ala ak li nga xamante ne moom moo aju ci seenu yoon lool dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy sunna yenente yi alayhim salaatu wassalaam te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la doon defal diggante sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum mu ne kon nag fa zaara mu daal di daal di euh, fa zaara mu daal di ziyaare salman sayidna salman radiyallahu abad darda sayidna abu darda radiyallahu taala anhu faraa mu daal di gis ummat darda sayyidatna ummat darda radiyallahu anha moom mooy soxnaam mu daal koy gis mu nekk koo xamante ne mutabazzilatan maanaam mu bàyyeeku maanaam mu daal di koy gis maanaam gis ne euh, mutabazzila maanaam boo xoolee baat bi li muy firi ci biti nii mooy ku yulli ay coonoom waaye maanaam mooy comme nit ku sonn daal maanaam mooy dafa bàyyeeku comme nit ku sonn euh, loolu nga xamante ne mooy de nekkutoon koo xamante ne euh, dafay defaru solu col bu baax ak yu ba xamante ne moom la gis loolu euh, loolu fa fa loolu tamit dafay tegtale ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum maanaam daan ñu nekk ak seeni soxna yi nit ñi di leen gisandoo maanaam loolu tamit loolu day xadis bi bokk na ci li koy tegtale fa qaala mu daal di wax ne laxaa ñel ko macha nu ki ana lan mooy sa mbir maanaam moom mooy lan moom moo tax ma gis la nga nekk koo xamante ne da nga bàyyeeku maanaam solo ko yeneen jigéen ñi ñoom ni ñuy faral di soloo meluloo comme yeneen jigéen ñi ni ñuy faral di mel qaalat mu ne ko axuka sa mbokk mi day abu darda radiyallahu taala anu laysa nekkul la woon ñeel ko xaajatun benn aajo fi dunya ci àdduna maanaam dafa dëddu àdduna daal buggul affaire àdduna dara moo tax man du may soxla di toilette maanaam di solu col bu baax ak bu jekk maanaam ngir moom maanaam kon loolu tamit euh, dañ ci daal di gisee ne léeg-léeg kon yenn nag maanaam mbir yi léeg-léeg mën naa daal yenn soxna yi ci xeetu bàyyeeku yoo xamante ne ñu leen ko yóbbee moom mooy gaa yi léeg-léeg ñoom it ñoom ñooy am xeetu bàyyeeku bu nekk ci ñoom wala boog seenu ñàkk yëg maanaam nit ki maanaam ngir ne bu fekkente ne soxna si day daal di masalan day sol ay yére yu rafet wala boog mu parfumé wu ba pare su ñëwee maanaam yow doo gis ne am na dara lu soppeeku ci ay mbiram maanaam doo xam sax ndax ne solo na wala soluwul wala boog parfumé wu na wala euh, parfumé wul wala dara xew na loolu boobaa loolu day daal di wàññi ak cawarte gi nga xamante ne moom lay sawar ci doxalin woowee mu ne fa jaa mu daal di dikk nag Abu Darda radiyallahu taala anhu nee na fa sanaa mu daal di koy toggal la hoo ñeel ko taaman ak ñam maanaam euh, bi mu ko ko defalee euh, euh, fa qaala mu ne ko nag kul lekkal maanaam mu toggal ko defaral ko ñam ba pare ne ko nag léegi lekkal bi nga xamante ne moom la ko wax mu ne ko fa inni naka man saa'imun aji woor laa maanaam loolu tamit muy firndeel ne dëgg-dëgg li nga xam ne moom la sayyidat Ummu Dardaa wax radiyallahu ta'ala anha de Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu dafa nekk koo xamante ne maanaam lii moom mooy daf koo seet si moom maanaam dafa seet si Seydina Salman radiyallahu anhu euh, bi nga xamante ne moom la ko wax fa euh, euh, sal seen moom la ko toggal maanaam moom Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu na Salman radiyallahu anhu moom moo ko toggal ñam ngir maanaam moom daf koo seet waat maanaam lii ci maanaam du ne daa ñëw këram toggal ko waaye daf bi mu ñëwaatee beneen yoon ci la ko jàngal maanaam beneen masala maanaam loolu tamit dinañ ci xamee ne léeg-léeg nit ki mën ngaa gis ci moom loo xamante ne xëy na war nga koo mën a leeralal waaye da koy bàyyi ba occasion bi nga xamante ne moom mooy occasion njàngale bi présenté bo nga daat ku koy leeralal ba xam xamante ne foofu la ko wax fa qaala mun wax ko ni ko kul euh, lekkal euh, qaala mu ne fa inni naka man mun aji woor laa qaala mu ne ko maa ana man euh, man nekkuma bi aakilin di aji lekk xattaa mbéta takku la nga lekk maanaam moom mooy comme man maa la toggal man it du ma lekk feeg yow lekkoo xaala mu ne fa akala mu daal di lekk maanaam kon loolu tamit day wane ni ñoom ñii maanaam doxalin yi ñuy doxale doxalin wu rafet la da gis ne kon li tax mu dogloo ko kooram moom mooy ne dafa am lu mu ko bëggoon a jàngal maanaam loo xam ne maslaxa bi njariñ gi ci du du sax gaa njariñu ñëpp maanaam du intérêt général waaye intérêt personnel la boo xamante ne ci mbokkam mi la aju muy sayyidna Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu loolu tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge itam bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne xeetu tarbiya léeg-léeg day jaare ci yu mel nii maanaam mooy nit ki di am lenn lu muy def loo xamante ne xëy na ah, topp maanaam ah, nam koy defee baaxul muy nuroo mu nekk jaamu yàlla gaa waaye nam koy defee baaxul ñu bàyyiloo ko ko ngir def loo ko leneen loo xamante ne xëy na maanaam loolu ci la njariñam di nekk ci wàllu digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala moo tax qaala bi mu ne ko ma anana man nekk ma kon bi aakilin di aj lekk hatta takula mbete nga lekk qaala mu daa di wax fa akala mu daa di lekk fa lamma ba nga xamante ne kaana nekk na allaylu guddi gi zahaba mu dem abu darda radiyallahu ta'ala anhu mu nekk yaqumu di taxaw maanaam guddi gi jot rek mu bëgg a taxaw di julli qaala mu ne ko nam nelawal fa naama mu daa di nelawaat summa topp zahaba mu daa di bëgg a jógati yaqumu taxaw maanaam di demati ne ne day taxawaat fa qaala mu ne ko nam nelawal fa lammaa ba nga xamante ne kaana nekk na min axiril layli ci mu mujjantelu guddi gi qaala salman sayyidna salman radiyallahu anhu ne ko nag léegi qumil aana léegi jugal léegi maanaam fon lii tamit day wane eh, ne sayyidna abu darda radiyallahu taala anhu moom ansaari la ni nga xamante ne noonu la xamee ngëneelu ku mel ni sayyidna salman al farisi radiyallahu taala anhu ba tax yi nga xamante ne moom la ko doon wax yépp ànd ak ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woon seen biir ci zahir nekk fi ci àdduna maanaam terewul moom nangu na ne kii moom mooy borom gëneel lu mag li maanaam te mu daal di topp li nga xamante ne moom mooy ay ndigalam mu daal di tamit bàyyi li nga xamante ne moom mooy ay tereem mu ne ko nag bi mu ne ko léegi jugal léegi fasal euh, maanaam euh, léegi nag fasal la yaa ñoom ñaar ñu daal di julli fa qaala lahu salman sayyidina salman radiyallahu taala anhu di ko leeralal ne ko innal lu wér boor mooy li rabbika ñeel na sa borom alayka ci sa kaw xaqan ak àq maanaam buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala dafa àq boo xamante ne moom moom la yor ci moom la la maanaam moom la amee ci sa kaw wali nafsika ñeel na ci sa bakkan tamit alayka ci sa kaw xaqan xaq wali ahlika ñeel na tamit sa ñoñ mooy sa njaboot sa soxna ak say doom ñoom it dañoo am alayka ci sa kaw xaqan àq فاعطي كون نغا جوخ كل ذي حق بروم حق بنك حقم حقم مانام لي تامت سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه واخ جيغا خامتاني موم لاي واخ تكتلول ني بروم سبحانه وتعالى دا فا امي حق بو خامتاني مانام بكك نيت كي ولا بو جابوت نيت كي دانيو ام اي حق يو خامتاني دانيو ووتك حق بروم سبحانه وتعالى مانام غير ني بروم سبحانه وتعالى دا فا ني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون binduma jinne ak doomu aadama lu dul ngir ñu jaamuma ma waaye li nga xamantene ne moom lay wax ji maanaam moom lay lay lay tekki moom mooy comme li nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne dafa am jamono joo xamantene ne moom ak boroomam subhanahu wa taala dañuy nekk amul keneen ku ci am beneen cër maanaam ñoom moom du ci rax maanaam keneen boolewu wu ci kenn ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem waxam ak mboolem jëfam yi ay jaamu yàlla la naka noonu euh, ni nga xamante ne tamit jullit bi dafa war a def ba nga xamante ne mboolem waxam ak mboolem jëfam ay jaamu yàlla la maanaam masalan tey li nga xamante ne moom mooy àq yi nga xam ne moom la gis ne ay àq ba kanam la wala ay àq yi muy boppam ak àq yi nga xamante ne ay àq njabootam lañ yooyu yëpp ay àq borom bi lañ tamit subhaanahu wa ta'ala maanaam masalan tey bu fekkente ne nit ki euh, dafa euh, jël maanaam àqu àqu beneen jaamu jaam maanaam àqu doomu aadama beneen mu jël àqu kooku bu boobaa su fekkente ne àqu boobu matalu ko àqu boobu day daal di nekk àqu borom bi subhaanahu wa ba pare mu nekk àqu jaam bi tamit da ciy daal di aju maanaam maanaa bi loolu la day daal di nekk kon maanaa bi tegtalewul ne euh, dafa am mbir moo xamante ne loolu da nga koo war a amal borom bi subhaanahu wa mu nekk xeetu jaamu yàlla waaye yeneen yi ci des moom yoonu yàlla nekku ci waru yàlla waruloo ko ci boole et que loolu du àqu yàlla loolu tegtalewul loolu abadan maanaam li nga xamante ne moom lay tegtale moo tax euh, wax jooju du dëgëral mukk abadan waxu ki nga xamante ne mooy wax ne euh, jaamu yàlla maanaam bu bëree baaxul déedéet abadan parce que jaamu yàlla moo war a nekk daa iman ci li nga xamante ne moom mooy euh, jëfu doomu aadama saa su nekk daa war a nekk ci jaamu yàlla léegi nag li nga xamante ne dafa am comme ni nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim noonu la ñu li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla yi dañ koo xaajale ginnaaw gi ne mboolem lu sharia digle jaamu yàlla la tudd dañoo xaajale mbir yi ñu di tuddee yenn yi yi ñu tuddee ko muamalaat yi maanaam wala ñu tuddee ko aadaat yi mooy jaamu yàlla yi nga xamante ne ñoom ay ibaadaat lañ tegtalewul ne muamalaat yi duñu ay jaamu yàlla de loolu moom moo tax masalan tey sëy wala boog euh, njaay ak jënd ak yooyu yëpp mu am yoo xamante ne ay exigence la yu ci charia teg yoo xamante ne ni nga ko war a defee ba noppi nag ñu bëgg ci yow nga daal di am yoo xam ne da nga koy moytu ngir ne yooyu soo ko moytoo nga daal di nekk ci loo xamante ne da ngaa moytandiku lu xaraam te képp koo xamante ne dafa moytandiku lu xaraam kooku day daal di yelloo tiyaaba maanaam lool day daal di wëlbatiku nekk euh, nekk euh, tiyaaba naka noonu tamit mu comme li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ittaqil maharima takunu a'bada nas moytu ndikul yi nga xam ne dafa xaraam bu ko defee nga nekk ki dàq jaamu yàlla ci nit ñi maanaam kon loolu day daal di tegtale ne kon ibadaat yi ak muamalaat yi même bu fekkente ne classification boobu dañ koo def tegtalewul abadan ci ne mu muamalaat yi duñ ay jaamu yàlla déedéet donte yee la ñuy wax ibaadaat yi maanaam loolu tamit mbir la moo xamante ne bu mata bàyyi xel la ci mbir mi su ko defee ñu daal di xam mën a déggee wax ji déggin mi nga xamante ne moom mooy bi jaadu déggin mi nga xamante ne moom mooy bi jaar yoon te kon loolu day daal di tamit euh, kon te te loolu noonu mooy kon wax yi benn bu ci nekk dafa am luñ ci namm maanaam ngir ne li ñu namm ci jaamu yàlla gii maanaam ne sa borom dafa am ci yow àq mooy ne am na mbir yoo xam ne si digganteeg sa borom kese la keneen amu ci àq am na mbir yoo xamante ne sa digganteeg sa boroom la waaye maanaam sa digganteeg sa borom la ak sa digganteeg sa bopp boobaa yow sa bopp am na ci àq naka doonu am yoo xamante ne sa diggante yow la ak say njaboot sa diggante ak sa njaboot loolu tamit sa borom am na ci àq maanaam loolu lay tekki mais tegtalewul ne euh, que ni euh, kon jaamu yàlla gi maanaam bëgg a jël maanaayu wax ji nag toxal ko ci maanaay que ni Euh, julli gu bëri baaxul wala boog koor gu bëri baaxul wala jaamu yàlla gu bëri baaxul ak day tardeel nit ak daf koy nangam loolu moom wax ju yàqu la boo xamante ne amul benn wax boo xamante ne amul ci lu mu tegu ci loo xamante ne lu ñu mën a dégg la du ci sharia du ci xaqiqa kon loolu tamit benn mbir la moo xamante ne bu mata bàyyi xel la ñu daal di déggee mbir yi lenn lu ci nekk nañ ko war a déggee te am na loo xamante ne moo tax ci usul am na lu ñu tuddee maqasidu sharia maanaam sharia lan moom mooy ay objectif ci yenn mbir yi kooku nag ki nga xamante ne amaan na moo ci gën a bind mooy ku mel ne al imam ash-Shatibi rahimahullahu taala rawatina ci téeram boobu al muwaafaqaat euh, euh, rahimahullahu taala euh, kon li nga xamante ne moom la wax ne fa aati kon na nga jox kulla di xaqin boroom àq bu nekk xaqahu àqam fa ataamu daal di dikkee annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama fa zakara dalik fa zakara mu daal di tudd zalika loolu la hoo ñeel ko fa qaala mu wax annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallama ne sadaqa salmaan sayyidina salmaan radiyallahu taala anhu wax na dëgg maanaam loolu tamit day tegtale ne wax lu mu rafet-rafet ak lu mu màgg màgg itam faw dañ ko war a xool ndax dëppoo na ak waxu alquran wala boog dëppoo na ak waxu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su fekkente ne dëppoo na ñu ne baax na su bee dëppoo na ñu ne gongo su bee dëppoowul nag ñu ne acam maanaam loolu mooy li nga xamante ne mooy li jaadu wallahu aalam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 6139 xadis la boo xam ne daf ko wéetoo woon liif imaamu muslim rahimahullah imam at-Tirmidhi moo ko indiwaat ci waa asxaabu kutubu sitta xadis numéro 2413 kon xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñaar rek ko indi muy imam al-Bukhari ak imam rahimallahu al-jamii mu ne baabu sawmi Sha'baan baabu buntu sawmi kooruk Sha'baan weeru ki nga xamante ne moom mooy weeruk Sha'baan euh, kon xadis euh, bi li nga xam euh, weer wi moom mooy weer wi nga xamante ne moom mooy ñëw laataa weeru koor maanaam mooy weer wi nga xamante ne moom moo jiitu koor ci weer yi nga xam ne moom la ñuy tuddee weeru jullit wala boog weeru wolof yi Sha'baan Euh, li nga xam ne moom la ñu wax ne moom moo tax ñu tuddee ko Shaabaan maanaam mooy euh, li tashaqqu binnaas maanaam ngir nit ñi euh, xaajaloo gi ñuy xaajaloo ginnaaw weeru rajab bi maanaam ngir dem wuti ji ay ndox maanaam di dajaloo di dem fu nekk di dem di def ay xaaj ah, di wuti ji ay ndox loolu moom moo tax ñu tuddee ko Shaabaan donte wax nañu leneen ci weer woowu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi buntu bi maanaam ngir wax gëneel gi nga xamante ne moom moo ci di weer ci di woor weer wi nga xam ne moom mooy Sha'ban liñ ci namm nag moom mooy woor ay fan ci weer wi wala boog fan yu baree bari ci weer wi loolu lañ ci namm mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi lay haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom at-Tinnisi rahimahullahu Abu Muhammad al-Kala'i mu ne akhbarana Malik muy imaamu daarul hijra rahimahullahu taala عن أبي النضر موي سالم بن أبي أمية القرشي التيمي رحمه الله تعالى داقن تلمنك أبو النضر ديوا مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام جن أدنى سابن نوفم أنا جنة وقال دايان انتبه صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سلمة موي ابن عبد الرحمن ابن عوف آه، رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما بوكتي وا آه، آه، بوكتي وا فقهاء الصبعي رحمة الله عليهم تبنتي واحد أنا كان موجرم نيرابي عن عائشة موي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت نانا كان نكون رسول الله إن وليال صلى الله عليه وسلم يصوم دانور حتى بيت نقول ننا لا يفطر دو دو دو ويفطر مدان دو حتى بيت نقول ننا لا يصوم دو الور ما نام كي ما نام لول لا الله عليه واله وسلم daanul jël benn mbir rek di ko saxoo noonu ci diggante woor ak dog maanaam nga xamante ne du woor mukk wala boog du dog mukk déedéet yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da woor bañ ne ah fi toll day nii mi wooree nii moom yaakaar nañ ni jeex na dootul dog naka noonu tamit doon da léeg mu dog bañ gaay jàpp ne ah kii day jeex na moom koor naafi la koor gàtta ka gi pare na ci mu ne nag fa maa ra'aytu waaye musumaa gis rasulallahi ndawal yàlla muy mottali siyaama shahrin kooru eh, weer illa lulu ramadana eh, weeru koor maanaam koor rek la mës gis mu nekk weer woo xam ne daf koy woor ba mu mat musuma ko gis mu woor beneen weer woo xamante ne daf koo woor ba mu mat waaye tamit wama ra'aytuhu waaye musuma ko gis aksar mu bari siyaaman ak koor minhu ci moom fii Sha'baan ci Sha'baan li nga xamante ne nag moom moo ajoon ci weeru Sha'baan maanaam ne ndax bu ginnaaw fukki fan yeeg juróom yi woor gi nga xamante ne maanaam tere gi ñu koy tere si wala boog sib gi nga xam ne moom lañ ko sib ci képp koo xamante ne doonutoon baaxoo di woor yenn fan yi wala boog yenn euh, bés yi ak tamit ginnaaw bi nga xamante ne maanaam Shaabaan euh, buñ demee ba weeru koor des ñaar wala ñetti fan wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alayhim gisoon nañ ko ci beenu téere bi Euh, bi ñuy wax ci euh, maanaam ci njàlbeenu téere bi ak tamit woor bis bi nga xam ne moom la ñuy tuddee yow mu chaq mooy bis bi ñuy sikki sàkk ndax danañ ko ndax ci koor gi la bokk wala bokkul ci koor gi tere gu ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tere ku ko woor loolu yëpp tamit gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna xadis bii kon day tegtale li tax imam al Bukhari rahimahullah indi ko ci wax ji nga xamante ne moom la wax ne musul gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bëri lu mu woor euh, benn weer lu ëpp ginnaaw weeru koor comme lu ëpp li muy woor weeru Sha'ban xadis bi imaam al Buxaari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 746 ak 1156 juróomi yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 2431 ak 2434 imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 736 ak imam an-Nasa'i moom lu bari la ko indi naka noonu imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1649 ak 1710 imaamu Malik bi nga xam ne ci lañ jëlee ci moom xadis bi indi na ko numéro 1850 numéro 859 imam Ahmad tamit lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Mu'aaz ibn Fadaala moom tamit comme abu comme Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi la manam ñom imam al Bukhari rek mo solo seen ay hadith manam Mu'aaz ibn fadal imam al Bukhari solo na ci mom ñaar fukki hadith ak juróom-benn mu waaye fii moom mooy jur fukkel ak juroom yoon bi nga xamantene mom lañ ko gis ci sahih bi rahimahullahu taala mooy Mu'aaz ibn fadal az zahrani Abu Zayd daqan talam mu bok ci fukki ko fukkel tabaka bi génn àdduna ginnaaw 210e ane année gadda gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala xaddasanaa Hicham moom mooy ibnu Sumbur ad-Dastawaa'i rahimahullahu taala di Aboubacar al-Basri ar-Rabi'i moom ci juróom-ñaareelu tabaqa bi la bokk tamit rahimahullahu gane àdduna 66e année génn àdduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Yahya muy ibnu Salih ibnu al-Mutawakkil gën a siiwee ci Yahya ibnu Abi Kathir muy Abu Nasr di ko Abu Kathir wala Abu Ayyub al-Basri at-Ta'i rahimahullahu ta'ala génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mi ngi génne àdduna nag ca Yamama rahimahullahu ta'ala mu ne an Abi Salama moom gisoon nañ ko léegi mooy ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma anna Aishata muy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha haddathathu moo ko nettali qaala mu daan ne lam yakun nekkutoon annabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yasuumu daan woor shahran weer aksara bu ëpp min shaabaana ci weeru shaabaan kon tamit dañuy gis li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci suñu buntu bi mu ne fa innahu naka moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yasuumu daan woor shaabaana weeru shaabaan kullahu lépp maanaam limti namm mooy shaabaan daf daan woor lu ëpp ci saabaan wala boog lu bëree bëri ci saabaan lool mooy li nga xamante ne moom la ci namm waaye comme niñ ko gisee woon ci riwaaya ci xadis bi weesu mooy ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musul woor ba mu mat lu dul weeru euh, lu dul weeru koor wa kaana nekkoon na yaquulu doon wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xuzu na ngeen jël jàpp leen minal amali ci jëf yi maa loo xamante ne tutiquuna am ngeen kàttan gi maanaam bépp jëf boo xamante ne da ngeen koy jëlal seen bopp rek maanaam di ko jaamoo yàlla muy nekk xeetu tatawwu mu nekk xeetu naafila boo xamante ne da ngeen koy def rek na ngeen nekk dina nekk noo xamante ne da ngeen koy attan comme niñ ko gisee woon loolu tamit day tegtale rek ne xat euh, ne nit ki jël ab jaamu yàlla tegoo ko maanaam di ko coobare woo di ko def te euh, mu nekk loo xamante ne lu muy attan la mu di ko def muy sax loolu day daal di nekk loo xamante ne. Euh, loolu lu lu loolu sunna la nekkul loo xamante ne dañ koy mën a tuddee bid'a waaye dañ koy mën a tuddee sunna amma nag li nga xam ne moom la ñuy tuddee bid'a ci jëmmi boppam mooy jëmmi le fait que mu tànnal boppam mbir mi euh, nekk loo xamante ne alquran sax tegu ko ko naka noonu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam digalu ko ko ci bi ta'yin maanaam ci ràññee gi ne mbir mi ci boppam loolu moom moo tax julli yi nga xamante ne moom moo nekkoon julli naafila yu weeru koor gi muy tarawixi Seydina Omar radiyallahu taala anhu tuddee ko bidaa daal ne ni'mat bidaat haade maanaam te loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax bidaatun xasana maanaam bidaa boo xamante ne dafa rafet muy jaamu yàlla loo xamante ne ci biti nii amaan na alekku dëgg la ne alquran saxalu ko moom ci jëmmi boppam yenente bi sallallahu alayhi wa sallama digliwu ko moom ci jëmmi boppam waaye nag mu nekk loo xamante ne lu rafet la loo xam ne lu mën a dugg ci attey sharia yi maanaam globalement mu mën a dugg ci sharia lu sharia nangu nga daal di koy jël di ko jaamoo borom bi subhaanahu wa taala doonte sax lay doon waaye tamit ci lim boo xamante ne bu ñu atten la loolu mu nekk xeetu jaamu yàlla mu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daat na fa inna allaha naka buur yàlla laayamul la du yokkat bi maanaam mooy du bàyyi euh, mukk ci di leen euh, fay xattaa mbéta tamallu yéen ngeen yokkat ngeen bàyyi jëf ji maanaam mooy feeg yéen bàyyi woo leen di def lu baax yàlla bu leen bàyyi fay maanaam loolu lay tekki tegtalewul ne yàlla ci boppam day jékki-jékki benn moment maanaam mu daal di sonn ci ci fay gi déedéet loolu ne mënta nekk ci yàlla loolu mënta nekk loolu moom moo tax euh, euh, euh, mënuñoo wax ne yàlla dafa amee melo wu ñu tuddee almalal mooy ak yokkat déedéet li muy tekki moom mooy ne yàlla du loolu moom moo tax laa budda kon ta'wil am ci te kon bu boba day daal di dëgëral li nga xam ne moom mazhabu ash'ari yi rahmatullah alayhim wa radiya anhum mais ta'wil dafa bokku ci li nga xamantene mom moy li yanu mana ci li nga xamné mom mo aju ci yàlla ak yenen tabbi alayhi salatu wassalam wassalaam wa ahabbu salati gën ja sop yu julli nak ila nabi ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam maa mooy li nga xamné du duuwi mom lañu saxé alayhi ci mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam julli gi mu gënoon a sopp te salaat fii mën naa daal di tekki bi maanaa bi maanal am maanaam maanaa bi gën a mat mooy maanal luxawi bi mooy lan mooy ñaan jaamu yàlla leneen loo xamante ne lépp loo xamante ne rek xeetu jublu ci borom bi la subhaanahu wa ta'ala ndax comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci beneen riwaaya bi ahabbul a'maali ila allah maanaam kon jëf yi gën géey yi gën yàlla yi yi gën fay buur yàlla subhanahu wa taala mu ne addu wa muha moy yi gën a sax wa in qalla donte dafa new manam kon bu boobaa ba maanaam boobu gën a làmboo mu ne wa in qalla donte dafa new kon loolu la kon loolu moy li nga xamne mom la yenent bi sallallahu alayhi wasallam sallam gënoon sopp te li yenent bi sallallahu alayhi wasallam sallam gën a sopp sikk nekkul ci ne loolu moy li gën a sopp fa bur yàlla borom subhanahu wa taala naka nonu tamit fi tamit nonu rek la demee mu ne wa kaana nekkoon na iza salla su daan julli salaatan ak julli ma day daan sax alayha ci julli googa saa yoo xamante ne day jël ne waxtu wii dama koy def julli wala waxtu wii dama ci def jaamu yàlla sàngam jaamu yàlla googu wala julli googu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan saxoo te loolu tamit moom mooy loolu la ñuy tuddee euh, naafila loolu la ñuy tuddee tamit euh, tatawwa euh, wala boog naafila boo xamante ne nit ki daf koy def coobare woo ko teg ko boppam euh, même bu fekkente maanaam di ko jaamoo borom bi subhaanahu wa taala kon loolu tamit moom ci la wérdi yi jógee wérdi yëpp daanaka maanaam lii moom mooy li nga xam ne mooy cadre bi nga xamante ne ci la ñu dugg kon nag képp koo xamante ne da ngaa jàpp ne du lu baax maanaam kon euh, ñu ngi ñaan rek nga indi ñu tontu ci bir mi ci xadis yi ak euh, yi ko nuru imam al Buxaari eh, eh, eh, naka noonu imam al Buxaari rahimahullahu taala xadis bi indi woon na ko xadis numéro 43 comme niñ ko gisee woon ci kitaabul iman ci babu ahabu diini ila allahi adwamu maanaam jëf yi gën a sopp ba yàlla gën a sopp mooy a sax naka noonu imam al Buxaari indi woon na ko xadis numéro 1151 ci baabu bi bil layli ah, loolu tamit eh, gisoon nañ ko ci naka noonu dina ko indiwaat xadis numéro cinq mille huit cent soixante et un ak six mille quatre cent eh, soixante cinq imaamu muslim indi na ko xadis numéro sept cent quatre vingt deux ñaari yoon ak sept cent quatre vingt cinq ñaari yoon imaam abu daawud indi na ko xadis numéro mille trois cent soixante huit imaam an-nasaa'i indi na ko xadis numéro sept cent soixante deux ak mille six cent quarante deux imam ahmad lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam at-tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabu maa yudkaru min sawmi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa iftaarih baabu buntu maa li nga xamante ne yuzkaru moom la ñu min sawmi ci kooru annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, maanaam ci jëf jaamu yàlla gi nga xamante ne daf ko daan jaamu yàlla ci di ko coobare woo wa iftaarihi ak dog gi mu daan dog maanaam léeg-léeg mu jaam mu mu daal di woor euh, jaamoo ko borom bi subhaanahu wa taala léeg-léeg itam mu daal di koy dog maanaam lii kon mu nekk loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan def daan na woor waaye daan na dog mu nekk loo xamante ne kon daf koy di xirtal ñi nga xam ne ñoom ñooy juli ñi ñu bañ a nekk ñoo xamante ne dañuy saxoo di woor waaye tamit ñu bañ a nekk ñoo xam ne dañuy saxoo di dog maanaam ginnaaw weeru koor itam mu am ay fan yoo xamante ne dañ ciy gën a xirtal ñu jaamoo ko borom bi subhaanahu wa lu demee nekke euh, juróom benn yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci weeru shawwal lu demee nekke altine yi ak alxamis lu demee nekke euh, bis yi nga xam ne ñoom ñooy ay euh, ay yaabul biir muy fukkeelu fan ak ñett fukkeelu fan ak ñeent fukkeelu fan juróom ci weer wi naka noonu ak yu deme neke bis yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fukki fan yu njëkk yi ci euh, weeru euh, ak rawatina bis bi nga xamante ne moom mooy bisub arafa bi juróom-ñeenteelu fan bi ci képp koo xamante ne demul màkka maanaam nekkul woon nekkul woon nekkul ci ajug màkka beneen wala lu deme neke bis yi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy bisub euh, euh, tamxarit ak bis bi nga xam ne moom mooy bis bi ko jiitu maanaam bisub tamxarit maanaam biñ naan bu tey la tamxarit ci guddi maanam bu guddee tamxarit dana am ak kon tamñarit comme ni nga xam ne noonu la ko wolof yi di waxee tamxarit ak tamñarit maanaam muy tasuwaa ak ashura maanaam mu nekk yooyu ay fan la yoo xamante ne ak tamit fukki fan ak fukki fan ak juróom yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu ci weeru saabaan rawatina tamit fukkeelu fan ak juróom ci weeru Shaaban ñuy muy muy nisfu Shaaban yooyu yëpp mu nekk loo xamante ne ay ay sunna saxal nañ ci sopp gi nga xamante ne moom la ñu sopp ku ko woor ak am na koor goo xamante ne moom la ñu tuddee siyaamu sayyidina Daawuda alayhi salaatu wassalaam moom mooy woor fan dog fan woor fan dog fan woor fan dog ak yu mel noonu kon yooyu yëpp mu nekk ay mbir yoo xamante ne njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee ne loolu mot imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala no se buntu bi di leral ni yenen bi sallallahu alayhi wa sallam am na luñ ci tuddal duñ ko tuddal ci ni mu daan doxale legi mu bu ko defé ñeneen ñi war ko ci mëna roy moy ñi nga xamne ñom ñoy wa xétam mu ne qala bil isnad al muttasil fi al kitab li haddathanaa musa ibn isma'il mom moy at-Tabuzaki al-Minqari rahimahullahu ta'ala mom Abu Salamata al-Basri rahimahullahu taala comme niñ ko gise woon ci juróom-ñeenteel tabaqa bi la bokk génn àdduna de weeru rajab ci de cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay euh, xadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta waaye moom sëriñ ñu imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud kese la rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Abu Awaana muy euh, Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri moom rek mu tudd Abu Awaana ci maanaam moom rek dañuy dàqantele Abu Awaana ci mboolem kutubu sitta yi ñaari saxiix yi ak sunan yi foo leen ci gisee baatu abu awaana kii la ñuy wax mooy alwaddaax ibnu abdullah al-Yashkuri di bokk ci juróom ñaareelu tabaqa bi gane àdduna cent vingt-deuxième année génn àdduna cent vingt-cinq cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam nekk ci tamit ci kutubu sitta an abi Bishr te moom mooy Jaafar ibnu Iyaasin daq talam nekk abu Bishr al nekkoon waasit yi dëkkoon waasit topp ginnaaw ga mu nekk basari rahimahullahu taala bokk <coughs> bokk juróomeelu tabaqa bi génnaat na 123 jàpp 124 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Sa'd an Sa'id te moom mooy Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham euh, moom rahimahullahu taala comme niñ ko gise woon moom mooy ki euh, Hajjaj mujjee rey maanaam moom la mujjee boom euh, ginnaaw ga boomaatul keneen ngir ne moom Euh, bi mu ñaanee mu ne borom subhaanahu yal taala naa nekk ki nga xam ne xajjaaj man lay mujjee rey sama ginnaaw bul mayetti xajjaaj mu mën a rey keneen ku dul keneen sama ginnaaw maanaam euh, rahimahullahu taala euh, Saïd ibn Jubayr Abu Muhammad nekkoon taalibi Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma borom bi subhaanahu wa taala defaloon ko mu nekk imam bu mag ci wàllu xam-xamu xadis naka noonu ci tasawuf naka noonu ci fiqh naka noonu tamit ci tafsir mu nekk imam bu mag boo xamante ne ñi ñëpp seen fànn yi dañuy dañuy sukkandikoo ci ay waxam rahimahullahu taala mu nekkoon waa Kuufa naka noonu tamit waa Makka la woon rahimahullah gane àdduna 46e année génn àdduna 95e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, kon moom amul 50 sax bi muy génn àdduna rahimahullah an ibn abbas radiyallahu taala anhuma annahu qaala nee na maa saama wóorul annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shahran weer kaamilan bu mat sëkk xattum mukk a ramadan lu dul weeru koor mu dëppoo ak wax ji nga xam ne moom la soxna Aisha waxoon radiyallahu ta'ala anha mu ne wooya mu te daan na woor nag ci yeneen weer yi hatta yaqulu ñu mu wax alqaa'ilu ci euh, aji wax ji laa euh, euh, wallahi waat naa ne laa yuftiru du dog maanaam la bi li muy tekki tegtalewul déedéet maanaam laa wallahi bi maanaam mooy day feddali dana ah ah maanaam uh-uh. waat naa ci yàlla maanaam loolu lay tekki ah waat naa ci yàlla wallahi ah uh, laa yuftiru kii du dog maanaam li muy tekki moom mooy ne ci weer wii ñu ne moom du ci dog waaye lu tax ngir ci ginnaaw leeraloon na ne musta woor weer ba mat kon li muy tekki mooy ci weer wii moom dootu ci dogate loolu lay tekki kon wax ji mu ne wa yuftiru te daan dog tamit xattaa mbéte yaqulu mu wax alqaa'ilu aji wax ji ne laa uh-uh, wallahi waat naa ci yàlla ne laa yasumu du woor eh, i ci moom weer wi moom du ci woor moom parce que gisuñu ko ñu mu woor moom weer wóorul wóorul maanaam kon ñu gis ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam lu ci ëpp da daan woor ci ay fan ci ay weer da daan woor lu ci ëpp da daan am daanul bàyyi maanaam noonu rek mu du woor waaye comme niñ ko gise woon ne weeru sha'ban moom la ëpp li mu daan woor sallallahu alayhi wasallam weeru naafila sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la indi imaam Muslim indi na ko xadis numéro 1157 ñaari yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 2430 imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2346 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1711 imaam Ahmad rahimahullahu taala euh, moom indi na ko juróom ñaari yoon kon ñu gis ni xadis euh, bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi na ko mu des. imam at-Tirmidhi te képp ku ko indi tamit benn yoon nga indi maanaam ngir ne imam Muslim daf leen a tegale maanaam mais ci benn place la maanaam kon képp ku ko indi rek benn yoon la indi rahmatullahi ala al-jami' wa qaala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li haddathani Abdul Aziz ibn Abdullah te moom mooy al rahimahullahu ta'ala Abul Qasim al-Uwaysi bokk fukkeelu tabaqa nekk waan Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam moom imam muslim solowul ci moom comme niñ ko gise woon imam al buxaari rek moo solo ci moom ak imam abu dawud ak imam at ñoom ñoo solo ci moom waaye booleen xadis boo xamante ne soloo nañ ko rek maanaam ñoom nii xadis boobu imam al buxaari solo na maanaam imam al ñoom saa yoo gisee imam muslim wa imam imam abu dawud boobu ak ak imam at-tirmidhi daan ne haddathana abdul aziz ibnu abdullah maanaam mooy ak uwaysi bi nga fekk ko ci xadis ci xadis nga fekk ko ci abu dawud ak tirmidhi xamal ne di nga ko fekk même hadith bi ci imam bukhari manam lolu te mom lu ëpp cag ci limu solo ci imam malik la solo mom al uwaisi bi rahimahullahu taala waye nak léeg-léeg mu solo ci kudul imam al-Buxaari leeg bari wul waye ku kudul imam malik leg leg nak mu solo ci moom rahmatullahi alayhi wul ci comme fi ngi mu ne qala hadathana Muhammad hadathani Muhammad ibnu jafar muy ibnu Abi Kasir al ansari الزرقي رحمه الله تعالى بوك تي جوروم نيارال طبقه بي نيك تاميت وا مدينه وا مدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام عن حميد تمم الطويل انه سمع انس مولى سيدنا انس بن مالك آه، ابن النضر الدمدم آه، ابن الدمدم الانصاري رضي الله تعالى عنه آه، يقول من كان نكون رسول الله ندول يا الله صلى الله عليه واله وسلم يفطر دون دوك من الشهر تي حتى متى نظن ني دادي an ne laa yasuuma dootul woorati minhu ci weer wi maanaam kon ci weer ci benn weer gis nga kon fii dafa gën a leeral ne maanaam bi loolu lay tekk mooy ci benn weer daan na ci woor mbete ñu njort ne kii moom euh, dootu ci doo daan na ci dog bokk mbete ñu njort ni kii daal dootu ci woorati moom sallallahu alayhi wa sallam wa yasuumu te daan na woor tamit hatta mbete nazul nañu daal di njort an laa yaftirana dootul dogati minhu ci weer wi shay an dara wa kanata nekkon na laata sha'u doonu toon sop taraahu nga gis ko minel leydi ci guddi musalliyan muy aji julli illa lulu ra'aytahu nga gis ko ci wala na'iman du caagen aji e, nelaw illa lulu ra'aytahu nga gis ko ci maanaam li muy tekki mooy ne léeg-léeg nga gis ko mu woor e, léeg-léeg nga gis ko e, maanaam maanaam guddi gi guddi gi da daan daan daan na nelaw comme ni nga xam ne noonu la daan naafi laa maanaam daanul jàpp naan guddi gi yëpp da ko daan julli comme ni nga xamante ne léeg-léeg noonu la ñuy waxee ni ah diwu sànkam day guddi yëpp da koy julli loolu du tagg maanaam lu tax nde yenent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog loolu donte baax na waaye daa am lu ko gën li ko gën nag mooy nga am looy nelaw boo pare nga am looy def comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan man a'lamukum billahi wa bi bihi ana ki leen gën a xam yàlla te gën leen koo ragal man mii la voilà ba pare daal ni asu euh, dani usalli wala boog aqumu wa anam damay taxaw guddi gi mais damay nelaw tamit ba pare wa asumu wa uftiru damay dog damay woor ga mais damay dog wa atazawwaju nisaa te dama ami soxna maanaam kon loolu tamit kon dafa bokk ci yi nga xamante ne Euh, euh, loolu euh, maay waaye nit ki jàpp ne moom wala soxna yi non dañ lay tardeel xam nga sa jaamu yàlla du dox boo amee soxna loolu xam nga et puis xam-xam bi du demee noonu no vraiment soxna moom grawul quoi nañ ko bàyyi jaamu yàlla yi tamit naka noonu bon xam nga nelaw mooy nelaw yi xam nga non guddi gi moom nañuy jaamu yàlla di julli julli rek woor non man moom duma dog quoi man correcte correcte ki rek lay dog yeneen bi melul woon noonu sallallahu alayhi dégg nga euh, mu ne euh, wa qaala euh, Souleymane Souleymane bii nag ñu bëri dañoo jàpp ne Souleymane ibn Bilal la waaye Souleymane ibn Hayyan al Asdi la muy Abu Khalid al Ahmar di waa Kufa rahimahullahu taala maanaam bokk ci juróom-ñetteelu tabaqa bi gane àdduna cent e année génn àdduna 190e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne hadith bi Souleymane ibn Bilal solowu ko. rahimahullahu taala euh, euh, Souleymane euh, ibnu Bilal moom gaa waa Madina la rahimahullahu taala génn àdduna cent soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa bokk ci jëmmi tabaqa bi que Souleymane ibnu Hayyan al Azdi maanaam ñoom ñaar ñoo bokk tabaqa waaye du moom maanaam ñoom ñoo bokk tabaqa ñoom ñaar ñëpp solo nañ ci Humayd at-Tawil sauf que Souleymane ibnu Bilal solowul xadis bi beneen yoon solowul xadis bi rahimahullah taala te imam al Bukhari dina leeral ne Souleymane bi ibn Hajjan la ngir ci xadis bii di ñëw inchaa allahu taala ci lay leere maanaam mu ne annahu nako moom sa'ala anasan laaj na sayyidina anas radiyallahu taala an fi saw bi ci masalay koor maanaam laaj na ko nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan wooree mu leeralal ko ko noonu kon xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi won nako hadith numéro 1141 te dina ko wat fi ci hadith bi di ñëw muy 1972 neuf cent soixante allah soixante treize imam muslim indi nako hadith numéro 1158 ben yon imam at-Tirmidhi indi nako hadith numéro 769 imam an-Nasa'i indi nako hadith numéro 1627 imam Ahmad mom indi nako lu bari rahimahullah rahimahullah taala kon ñu gis ne hadith bi waa asxaabu kutubu sita Eh, ñoom ñëpp eh, solo nañ ko moom des imam abu dawuda ak imam ibnu Majah, rahimallahu Jami'ah, wa qala bil isnad al muttasil fi awal kitab lay haddathani muhammad mom mooy ibnu al bikandi rahimahullah bi imam al bukhari eh, rahimallahu nga xamne imam al bukhari mun qala akhbarana abu khalid al ahmar te Sulaiman sulayman ibnu hayyan al asdi bi ñu wax li manam kok moy abu khalid al ahmar maanaam euh, rahimahullahu taala moom moo bi jële ko qaala axbaranaa Humaydan Humay axbaranaa Humaydun at-Tawil bi na doon wax léegi mu ne no qaala sa'altu Anasan laaj naa Seydina Anas radiyallahu taala anhu maanaam mooy ci wàllu koor maanaam jaamu yàlla gi mu dëng ani sawmi an an siyaami nabi yi ci koor yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala mu ne maa kuntu nekkuma woon uhibbu doon ko sopp an araahu ci gis ko mi mina shahri ci weer saa iman muy aji woor illaa lu dul ra'aytuhu dinaa ko ci gis wala muftiran du caageen aji dog illaa lu dul ra'aytuhu danaa ko ci gis maanaam euh, weer wu jot bu ma bëggee xam ban bës la woor ak ban bës la dog doon naa ko gis lu tax parce que bis bu nekk ci weer wi dina ci woor dina ci dog dégg nga wala du caageen minal layli ci guddi gi qaa'iman muy aji taxaw illaa lu dul ra'aytuhu ma gis ko wala naa'iman du caageen aji nelaw illaa lu dul ra'aytuhu ma gis ko wala masistu eh, te musuma laal eh, xazzatan eh, ab ab ab ab ab éponge mooy lu lu lu wala wala bokk ak ñax ah lu ñu lu ñu mën a laal daal mooy tissu wala xariiratan du caageen xariira mooy sooy sooy alyana bu gën a yokk bu gën a nooy maanaam lépp lu ma laal rek li gën a nooy ci la may laal min kaffin rasulillahi ci tenqal rasulillahi sallallahu alayhi wasallam éponge bi wala tissu wala sooy lu ma ci mënti laal euh, ndax xas xasa dañ koy faral mooy tissu ñaare boo xamante ne day xaw am xeetu ñagas tuuti voilà mooy wala éponge boo xamante ne mooy xeetu njàmpe wala yu mel noonu maanaam wala boog loo xamante ne euh, xarira euh, mooy sooy nga xamante ne soie yi day am euh, yoo xamante ne comme day am diibaaj wala yeneen yu mel noonu mooy comme xeetu mbàjj yi nga xamante ne day nooy ak yu mel noonu yooyu yëpp amul benn boo xamante ne wala boog yenn borode yi amul benn bu ma ci laal bu gën a nooy loxo loxo yent bi sallallahu alayhi wasallam wala samimtu te musuma xeeñtu miskatan benn misk wala abiratan wala bokk abira yépp xeetu gëtt la ab atyab bu gën a teey bu gën a neex raihatan xet min raihati ci xetu rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam yenente bi sallallahu alayhi moom euh, am na ci beneen riwaayu ambar wala ambar maanaam muy ambar mooy moom tamit xeetu gëtt la maanaam yenente bi sallallahu alayhi moom naturellement maanaam moom ci boppam moo amoon parfum maanaam moom ci boppam moo amoon gëtt sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaqa bi comme li sayyidat Ummu Sulaym radiyallahu anha mais ñun dañ daan jël fekk ko muy nelaw mu ñaq ñu jël suñu suñu euh, euh, ak kaas wala xeetu pot ku kaas jël ñaq gi rek rek yër ko te ñaq googu maanaam moom amul misk amul xeet parfum bu ko gënoon a neex moo tax sax sallallahu alayhi wa sallam yowoot yi sax ñaare nañ daan xamee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam laal na seen doom yi wala tase nañu moom mooy xet bi muy bàyyi ci ñoom bu ko defee ñu mer waaw lu tax ngay ngay ngay bàyyi mu lay laal waaw voilà wala mbedd moo xam ne dañuy xam ne mbedd mii kat fii la jaar lii sallallahu alayhi wa alihi waaw moo tax sallallahu alayhi wa sallam loolu dinañ ci gën a ñëw insha allah taala ci bi ñu indiwaat xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat ci kanam insha allah taala ci kitaabul manaqib baabu sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi muy melale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon xadis bi insha allah taala ci anam gii dina ko indee noonu maanaam dinañ ko indiwaat waaye bu dee ci anamu di leeral wàllu koor gi moom fii la ko indi maanaam eh, fii moom mooy fi ñu ko mujje indi rax eh, eh, muy kon imam Bukhari kon indi woon na ko xadis numéro 1141 1972 dina ko indiwaat xadis numéro 3561 waaye foofu da ci leeral lan melo yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Muslim indi na ko xadis numéro 1150 ak 2330 ñaari yoon imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 769 ak 2015 imam euh, ahmad lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñett ko indi muy imam buxaari imam muslim ak imam tirmizi amma ñeneen ñi ci des ñoom indi wuñ ko te moom mooy imam abu dawud imam an-nasa'i ak imam ibnu maaja rahimallahu al-jami' mu ne baabu xaq dayfi fi sawmi baabu buntu xaq dayfi aqu ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, xaq aqu ki nga xamante ne moom mooy dayf mooy euh, gan bi fil saw mi ci koor maanaam bu fekkente ne li mu ci nam mooy bu fekkente ne da ngaa woor àq gi nga xamante ne moom la am ci sa kaw ba tax nga war a mën a dog loolu la ci nam euh, euh, loolu moom moo tax al imam az-Zayn ibn al-Munir daan ne lu lu gënoon a yelloo mooy mu wax xaqul xaqul fitra wala wala iftar xaqul fitra manam fi sawmi moy akko wala bok xaqu dayf fil fil fitr bok han wala bok fil iftaar manam moy ci dok bi nga xamne mom la warona dok dog mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitab li haddathana ishaq moom moy ibnu ibnu ibrahim al alhanzali rahimahullahu taala te mom moy ibnu rawahi mom ko la mom ko ko la siiwee ibnu rawahi rahimahullahu taala kon moom mu bokk ci fukkeelu tabaqa bi gane àdduna 161 ma ne gën a àdduna ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nekk imam bu mag euh, rahimahullahu taala moom mooy ki sabab sax imam al-Bukhari yi taalif euh, saxiix bi ndax moom moo ne ko won aka a neexoon mu am koo xamante ne euh, wala bokk ci sabab yi voilà ngir ne am na ay sabab yu bëri bokk na ci le fait que mu gisoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mu yor jaasi di ko défendre mu li mu ci bëgg moom dafa waroon a taalif li nga xamante ne moom mooy saxiix bi nga xam ne ay xadis yu wér kese ngir mën a présenter nit ñi nit ñi mën a am lu ñu mën a sukkandikoo ci seen mboolem diine yi daanaka maanaam ñu mën sukkandikoo ci euh, téere ci ay euh, waxu yeneen bi saa loo xam ne xam nañ ni li ci nekk wér na loolu moom mooy benn bi ñaareel bi nag moom mooy li gën a accentuer loolu li gën a tax mooy imam Ishaq ibn Rahawayh bii nga xam ne sëriñam la rahimahullahu taala dafa ne woon ak a neexoon mu am ku bindal téere boo xamante ne daf ñu ciy seggal rek xadis yu wér ci yenente bi sallallahu alayhi ba pare seggal ñu ci xadis yi gën a wér moom loolu mu ne lool bu mu ko waxee nag maanaam mu loolu gën a sax ci xolam mu daal di bind téere maanaam mu mu daal di mu daal di jóg ngir taalif li nga xamante ne moom mooy saxee bi rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana Haarun ibn Ismail te moom mooy al-Xazzaaz Abul Hasan al-Basri rahimahullahu taala génn bokk ci juróom-ñeenteelu tabaqa bi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Ali muy Ali ibn Mubarak al-Hana'i bi waa Basra moom tamit rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñaareelu euh, tabaqa bi mu ne qaala euh, haddathana Yahya muy ibn Abi Kathir bi ñu tuddoon léegi mu ne qaala haddathani Abu Salama muy ibn Abdurrahman Nawf mu ne qaala haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma انه قال أن دخل دغنا علي من رسول الله دوال يالا صلى الله عليه وسلم فذكر مدار الحديث حديث يعني مانام ليمو تي نام موي لا موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم داف كو واخ اكزاكتومون ليغا خامني موم لا سيدنا سلمان واخون رضي الله عنه واخون سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه مانام لول لاكو يونتي بي واخ صلى الله عليه وسلم مانام بي غيس ني لول داف ام لنين لوموي تكتال موي ني صحابه رضي الله تعالى عنهم yàlla daf leena defal limu defal yenent bi maanaam dañoo donn yenent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ñu ngi dundandoog moom ñu donn ci moom ay mbir yu bari te bokk na ci loolu moo jawaami'ul kalim loolu moom moo tax boo li ñu tuddee sunnatul fi'liya mooy sunna boo xamante ne mooy xadis boo xamante ne fi'li la mooy xadis la boo xamante day wane jëfu yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam da ngay gis wax jooju soko jëlé ak li nga xamne dañ ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ak ñe bu ñu définir ni yenent bi mel wala li mu def maanaam da ngay gis ne wax yi daanaka day nuroo doo leen mën a tàqale maanaam day mel ni li yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam ak ni saxaaba yi wax daanaka mënoo leen a parce que dañ koo dañ maanaam dañoo jeex tàkk ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ñoom dañoo am jawaami'ul te loolu yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko jagoo wëllif mboolem yeneen yenent yi alayhim salaatu wassalaam euh, te yii tamit daf ci bokk mooy ab saxaaba radiyallahu day wax benn wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax beneen wax feneen ñu jël ñaari wax yi teg ñu gis ne même wax ji la même même même baat yi amul virgule bu ci banque wala point virgule wala ab ab ab ab hatta de coordination du ci manqué maanaam euh, même chose la beneen bi ci des tam léeg-léeg sax moo tax léeg-léeg boroom xam-xam yi rahmatullah di am problème di mën sax définir ndax xadis bi marfu la wala mawquf la tellement que waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak seen wax dañoo nuru radiyallahu ta'ala anhum moom mu ne kon nag euh, mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko innal ñeel na ñeel na li zawrika euh, ñi nga xam ne ñooy lay ziyaare alayka ci yow xaqan ak àq wa inna ñeel na la li zawjika sa soxna alayka ci yow xaqan àq fa qultu mu ne ko wamaa sawmu daawuda lan mooy kooru yent yàlla daawuda nag léegi alayhi salaam qaala mu ne ko nisfu dahri génn wàllu jamono maanaam genn wàllu jamono waaye da ngay woor di di di di waaye lii xadis bi da koo tënk day gis ne xadis bu ñu tënk la insha allah taala dina ñëw ci euh, ni mu gën a guddee xadis bi imam Bukhari rahimahullah taala dina ko xadis numéro 1153 euh, imam euh, dina ko indiwaat xadis numéro 1975 1977 5199 ak 6134 imam Muslim dina ko xadis numéro 1159 ñeenti yoon imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux ak 2401 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 6862 6867 huit ak six mi gis ne kon xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñett ko indi te mooy imam bukhari imam Muslim ak imam nasai te yeneen ñett tamit indi wuñ ko muy imam Abu Dawud imam tirmidhi ak imam Ibn Majah rahimallahu al-jami' na baabu baabu xaqil jismi fi sawmi baabu buntu xaqil jismi àqu euh, jëmm fi sawmi ci koor ah àqu jëmm ci koor maanaam mooy ne woor daa iman loolu nekkul loo xamante ne lu diine di di digle la lu tax ngir ne si jëmm tamit dafa am àq goo xamante ne moom moo ci nekk te akk googu day dellu ci àqu borom bi subhaanahu wa ta'ala comme niñ ko gisee léegi ngir ne nit ki bu néewalee jëmmam doole jaamu yàlla mu wàññeeku wala boog ay ay ay possibilité mu mën a diversifier ay xeeti jaamu yàlla am itam day wàññeeku yu baree bari doot ko mënati kon bu boobaa da ngay gis ni kon euh, loolu la maanaa bi di lamboo comme niñ ko gisee woon léegi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana ibnu muqatil te moom mooy al imam muhammad ibnu muqatil al marwazi boo ko teg comme ni nga xam noonu lañu ko gise ndax ñaari muhammad ibnu muqatil ñoo am al marwazi ak muhammad ibnu muqatil al razi muhammad ibnu muqatil al razi moom moom daa mën a expliquer moom lu mu la wax du dëgg daanaka Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi nag moom li muy wax yëpp maanaam moom nit ku woor la moo tax euh, comme niñ ko waxee imam al-Bukhari rahimahullah dafa mënta haddathana Muhammad ibn Muqatil benn waaye dafa al-Razi wala al-Marwazi mu ne waat nag maanaam ma ma solo ci Muhammad ibn Muqatil ar ma xawwee koo ci asamaan ma daanu bépp ci kaw foofu moomu ko gënal. maanaam mooy abul xasan al kisaa'i kon al maro euh, al marwazi rahimahullahu ta'ala ñu naan ko rux ah abul xasan euh, al marwazi al marwazi al kisaa'i nekkoon baghdadi summa al makki euh, rahimahullahu ta'ala bu nekk ci bokk fukkeelu tabaqa bi gànne génn àdduna bokk deux cent vingt sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Makka mu ne qaala axbarana Abdullah muy ibnul Mubaarak al Marwazi rahimahullah maanaam fu Muhammad ibn Muqaatil سيدنا سعيد حدث عبد الله بن المبارك ليتك عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى من أبو عبد الرحمن الحنزلي بوقت جلوم نتير الطبقة بدي إمام بمك رحمه الله آه، بوقت نجيك بنتير الحديث كم إمام مالك بوقت نبوقت جمنا مم من جنة أدنى سعى بزيكم أنا جنة أدنى سعى كتبت إنيم أنا جنة وقد دائم تبي صلى الله عليه وسلم من قال أخبرنا الأوزاعي ما نم الأوزاعي بيتامي دانك ñom ñoo bokk jamono mais sauf ko mom mo ma gone

ay ma maanaam daanaka ay maas lañ maanaam euh, imam euh, bi nga xam ne moom mooy imam al-Awzaa'i di faqihu Shaam euh, rahimahullah nga xam ne ci ngiiram yi ci ngiir yi gënoon a màgg la bokkoon ba nga xamante ne ci juróomeelu ak juróomeelu dem na sax ba juróom jàpp juróom benneelu siècle bi ngiiram doog a ci ngiir yu mag yi la bokkoon nekk imam bu mag boroom xam-xam bu mag a mag a mag nekk nitu tasawuf nit ku sell radiyallahu ta'ala anhu comme maanaam moom ñoom imam Malik daanaka benn la moom ñoo tolloo woon ah rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu Abdurrahman ibn ah, Amr ibn Abi Amr muy Ahmad al-Shami ah, Abu Amr nekkoon dàqantalam muy ñu maanaam muy imam al-Awza'i bu siiw maanaam moom la gën a siiwee rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñaareelu tabaqa bi gën a àdduna 80e année génn àdduna 157e année ca Beyrouth Euh, ginnaaw maam ginnaaw 157 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Beyrut la génne àdduna qaala haddathani Yahya ibn Abi Kathir gis nañ ko léegi mu ne qaala haddathani Abu Salamata ibn Abdurrahman gis nga fii dafa tudd euh, turu turam ak turu baayam Abu Salamata daa di koy askanale ibn Abdurrahman mu ne qaala haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala lii wax na ma Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ya Abdallah eh, ayo Abdallah alam ukhbiruka xanaa duma la xabaare annaka naka yow tasuumu alam alam uxbar boog xanaa xabaarewuñ ma an naka naka yow kat tasuumu da ngay woor an nahaara bëccëg yi wa tasu wa taquuma ngay taxawee la layla guddi gi maanaam euh, comme bàyyi moo ko wax fekk booba ñu mayeen ko soxna euh, maanaam euh, biñ toogee ba semaine bàyyi bi ñëw parce que moom papam fukki at ak ñett la ko magee wax nañu sax fukki at ak benn la ko magee mooy Seydina Amr ibn al-As radiyallahu maanaam mu ñëw seet si ko seet si soxna si de ko ana ah, naka kii mu ne ah waaw moom kay ah, wax dëgg yàlla sama jëkkër ji amu moroom ndax moom day ah, bëccëg yëpp da koy woor bëccëg moom bëccëg yëpp da ko woor maanaam bi yëpp da ko woor te guddi géet lépp da koy taxaw di ko jaamu yàlla du nelaw guddi gi tamit te bëccëg yëpp da koy woor mu daal di xam ne daa da koo jàmbat parce que bu dee bëccëg yëpp da ko woor guddi gi yëpp day julli mooy ñoom ñaar lu séq dara kon mu xam ne daf koo jàmbat mu daal di koy jàpp ñëw indi ko ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko yenente bi nag sallallahu alayhi ne ko waaw xanaa kon lii ñu ma wax moom waxuñu ma ni lii am na fa du ma ne mu nee ma ne ko balaa axanka ya rasulallah yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne ma fala tafal bu ko def bul def loolu sun woral wa aftir te ga dog wa qum te nga taxaw guddi gi wa nam te nga nelaw fa inna li wér bu wor moy li jasa dika ñen ci jëmm aleyka ci sa kaw xaqan ak wa inna te ñen la li aynika sey beut aleyka ci sa kaw xaqan ak say bëtit dañoo am ci yow ak wa inna te ñen bi zawjika sa soxna aleyka ci amna ci sa kaw haqqan aq wa inna te ñen la li zawrika sey mbokk manam sey ñi lay seet si ñi nga xamne dañ lay ziaré di set ni sa amna nañ aleyka ci yow haqqan aq maanaam nit ñi tamit duñ la seet si nga bàyyi leen mu naan da ngay julli di julli julli yu dul jeex ah wa inna te lu wér mooy bi xas bi ka dana la doy rek anta suuma ci nga woor kulla shahrin weer wu jot salaasata ayyaamin ñetti fa maanaam xataa yonent bi sallallahu alayhi wasallam même buñ naan da daan woor tout le temps tegtalewul day woor di woor di woor di woor di woor di woor di woor ndax lii moo koy leeral ndàggali ko ñetti fan wóoral ñetti fan dégg nga fa na li wër boor mooy laka ñeel na la bi kulli xasanatin ci eh, yiw wu nekk jëf ju nekk joo def lu yiw ashara fukki am saaliha yu ko nuru fukki kemam c'est-à-dire que yow kon bu fekkente ne weer wi fan weeri fan la ñaare boo ci wooree ñetti fan mi ngi mel ni woor nga weer wi yëpp kon jëlal ñetti fan rek ci weer la nga woor mu ne ko fa inna naka loolu kat za fa inna li wér wóor mooy zalika loolu siyaamu dahri euh, wooruk euh, maanaam siyaamu dahri euh, koro diirub jamono la kullihi lépp nee na fa shaddatuma taral fa shuddida ñu taral alayya ci maanaam bi ma taralee ma it ak affaire yi wëlbatiku ñu nit ñu taral sama kaw nee na xultu ma ne ko ya rasulullah yoon doon yàlla sallallahu alayhi wasallam inni naka man ajidu daj naa quwwatan kattan ma ne ah pourtant am naa kattan gu ma mën a wooree lu ëpp lii de xaala mu ne ko fa sum wooral siyaama nabiyillahi koor yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam da alayhi salaam daawuda alayhi salaam wala tazid te bul yokk alayhi ci loolu bul ci yokk manam parce que dafa am li amna lu lu dox ci digënté bi moy bi mu nee lii mu ne ko kon del wor lundi ak jeudi manam maanaam kon mu no wor ñetti fan yee kese légui del wor lundi bu né ak jeudi bu né mu ne ko man non man gën mën lu upp li mu ne ko nag euh, kon nak del wor wor yent yalla daoud alayhi salaam kultu ma ko wa maa kaana wa ana lan yent yalla bi Daawud alayhi salaam qaala mu ne nisfu nisfu dahri genn wàllu diiru jamono genn wàllu diiru jamono fa kaana mu nekkoon Abdullahi sayyidina Abdullahi ibn Amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu dan wax baadamaa ginnaaw bi nga xam ne kabira màgg na loola taxaw mu ne fa shaddatu fa shudda alayya lii moo taxaw sama kaw lii moo taxaw mu ne ba mu màggee mu ne yàlla laytani ak a neexoon qabiltu ma nangu ruxsatan nabi wooyu falug yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii tamit day tegtale bu fekkente ne euh, moom jaayante gi mu jaayante gi yenente day woor fan yi moom sañatu koo bàyyi moo tax même bi mu màggetee bi mu demee ba màgget mbir mi metti ci moom nag léegi mu ne mënatu ko moom foog maanaam comme que loolu la waxante ak yenente bi da koy continuer lii tamit cosaan la ci jaayante ji maanaam taalibe di jaayante nitu yàlla yi ci benn jaamu yàlla ne dootuñu ko bàyyeete ndax lu tax ndax day daal di taxaw taxawaayu farata ngir jëmmi jaayante gi ak jëmmi nisar bi dégg nga mu ne euh, kon kon euh, xadis bi euh, gis nañu ko ci imam al Bukhari rahimahullahu taala indi na ko lu bari comme ni nga xam ne lañu ko numéro 1131 1153 dino ak 1974 gissone 1976 1977 1976 ba 1980 ak 3418 ba 3420 euh, ak 5052 5199 6134 ak 6267 imam muslim mom indi nako xadis numéro mille cent euh, cinquante neuf fukki yoon la ko indi mille cent cinquante neuf maanaam fukki version la ko indi imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille trois cent quatre vingt neuf ak indi ko xadis numéro sept cent soixante dix imam bari la ko indi imam Ibn Maaja ko xadis numéro mille cent douze imam ahmad tam lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii' wallahu ta'ala a'lam